أعوذ بالله السامع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bokki jullit yi ñuy déglu mbokki taalibe yi mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo ba ak sunu ziyaara alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ba naal yi mu naalal xadra maamam bi Cheikh El Hadj Malick Sy anhu mu mottali ko sumb ya ca yéene yàlla may ko kattan ak sago bu mu ko mottalee nu teg ci loxoom sunu nuyoog sunu ziyaara jëmale ko ci njabootu Cheikh El malik si Sy radiyallahu anhu di ca jiital sunu wéyjur El malik si Sy suñu maam Abdoul Aziz Dabakh nekk wéyjuru wu sagu ci xadara maamam bi ca xam-xam ba ca teey ga mu nekk référence su mag ñeeg ndaw ñi tabarakallah di dugal ci nuyoo beeg ziyaara bi suñu wéyjur Serigne Babacar ci Abdoul Aziz nga xamante ni mooy recteuru université Cheikh Al Hadj Malick tabaarakallaahu moom it di référence ci wàllu woo ko natte di ca dugal seen rakk yeeg seen doom yu tedd yi di dellu siwaat ci yéen rek gannaaw ba ñu leen ndokkeelee ci xew-xew bi ñu génn di mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam ndokkeel ci jullit ci senegaal ñaan yiw yi nga xamante ni wàcc na fii ci réew mi walla ci àdduna bi sax lay wax mu jóge ca xadara yu tedd ya ngir jëmmam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may noonu séddu bu baax ci yiw woowa te li nga xamante ni moo di jàngaleem te suñu kilifa ñaax ñu ci fexe ba moomale sunu bopp jàngale moom ak yar boobu nga xamante ni moo di yaru yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ni dawal bët ci moom rekk jar na yaru àdduna ak alaaxira tabaarakallaahu kooka li mu def yëpp ngir sauver jaam yi sunuy kilifa jàpp ni jaadu na génération yu mujj yi mu fexe ba njàngale moomu sax ci ñoom nu dundal ko ci ñoom ci rango valeur yi nga xamante ni mooy valeur yi mu incarné te dajale ko te matale ko nat looloo tax thème bi nga xamante ni xalifa bi joxe na ko nu war ci liggéey ci plateforme yi nga xamante ni ak espace yi nga xamante ni war nañ ci jàllale jaar communication yi nekk bi hadi rasul nu wajjihul ajial euh, tabarakallahu mu nekk thème bu am solo waaye thème boo xamante ni dafa dikk ca jamonoom jamono joo xamante ni nit ñi seeni repère effacé wu na ndaw ñi xamatuñu fu ñu jëm la fexe ba nu bañ a nuur ci géeji lëndëm jaadu nañu delloo ci seen xel fàttali leen li nga xamante ni mooy njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa jaare ko it ci li fi mag ñi bàyyi te taataan te nandal ñu ci te bañ ñu doon ay ñag yi njengal ni ko sëriñ Babacar si radiyallahu anhu daan waxe daan wax ni doom na ngeen wattandiku doon ay nag nagi njengal moo di ay mouton de panurge yoo xamante ni lu fëx nga ànd ak moom encrage boobu nu soxla ci ñoom moo tax kilifa gi joxe woon thème bi nga xamante ni tudd nañu ko ni nañu ko fésal ñiy dem ci rajo yeeg ci télévision yi nañu ci waxtaane ngir fàttali ndaw ñi li nga xamante ni moo leen di jariñ te bañ leen a lor loola nag ci cadre COSCAS comme ci cadre cellule Zawiya Tijaniya waaye ci cadre daara ji lay wax sax nit ñi fexe nañu ba fépp foo xamante ni war nañ fa jàllale message bu jëm ci thème boobu nu yeggale ko cellule Zawiya Tijaniyya nag yàlla dafa dogal mu am mission boo xamante ni moo ëmb lépp lu jëm ci wàllu communication ak animation scientifique bu xadra bi rawatina nag ci gàmmu gi mu nekk euh, mbooloo moo xamante ni ay ndaw a ko seq waaye teg ko ci ndigal ndigalu seen kilifa ndax lu mat ñaar fukkiyaat ak lu topp a ngi mission boobu tegu ci kawam mu di ko saytu gannaaw ba mu ci jëlee ndigal ci Mawlana Cheikh Abdoul Aziz Al Amin ci barkeelu sëriñ Mansour borom daara ji radiyallahu anhuma boobaak léegi ñu di ko doxal xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour confirmé kóoluteem ak confiance ci liggéey bi nga xamante ni moom la def mu daal li nuy sant nu yeggale ko ci yiwam ak yéeneem ak rafetalam ndax lam nu wax ni nu li fi seen bàyyi samp duñu ci dindi tarfatal ayn tabaarakallah te loolu la doxale nag wax dëgg yàlla def kook jaboote def kook yiw def kook sutura ak ñaan ndax du nu jàpp mooy bu nu amee ñaanam rekk lu nu bëgg a sumb rek yàlla dañu ci defal sutura incha allah tabaarakallahu ah liggéey boobu nag fexe nañu ba fësale ko ni nu ko yaakaaree ni noona la baaxe moo di fexe ba lépp lu nuy tëral ci wàllu gàmmu gi nekk ci ñaari cat benn cat bi mooy ancré sunu bopp ci li nga xamante ni mooy authenticité wu message yu yonent bi sallallahu alayhi wa ak njàngale mag ñi beneen cat bi mooy fexe ba niru suñu jamono mu di wàllu innovation euh, tabarakallahu nu indi ci nag ay programme yoo xamante ni yu yees la waaye yu am solo la ba ca njëkk di li nga xamante ni organiser woon nañ ko muy hackathon bi ñu njëkk a def mu di jongante boo xamante ni lañu ñu ci wundoon mooy fexe ba ñiy yëngu ci wàllu xarala yu yees yi ñu dajale leen fi tënk leen ci ay chartu liggéey liggéey boo xamante ni dafay dellu siwaat ci xadra bi doon njariñ ci ay plateforme yoo xamante ni dañu koy créer ngir problématique yi xadara bi am ñu indi ci ay solution sur le plan technologique li ñu leen joxoon ci ay problématique ba ca njëkk moo di wàllu bibliothèque numérique ak wàllu enseignement numérique li ñuy woowee euh, e-learning bokkoon na ci it problématique bu jëm ci wàllu naka lañuy ñuy fexee ba créer ay plateforme yoo xamante ni dafay fësal wàllu tourisme religieux ak nanu mën a fexee ba yokk attractivité wu xadratul malikiya ak dëkk yi nga xamante ni ñoo di dëkk symbole yi bokkoon na ci ci problématique yi ñu leen seex yi ñu leen santoon euh, liggéey ci lu jëm ci wàllu way naka la ñuy fexe ba ñiy way di jàng xasida mag ñi wala di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la ñu mën a fexe ba créer plateforme boo xamante ni dana leen mën a jàppale ba la ñuy way wala la ñuy danañ ca mën a euh, am profit euh, tabaarakallaahu yooyu yëpp doon ay euh, euh, ay problématique yoo xamante ni xale yi fi daje woon ci lu xaw yegg ñaari téeméeri développeur informatique daje woon nañu fi fii ci Tiwaawan ci ñi lu mat lu diiru ñetti fan yoo xamante ni liggéey nañu ba nu liggéey ñu tànn liggéey yi ca ëpp solo tabaarakallaahu ñu sélectionné leen jox leen ay nampaay waaye yamunu foofu moo di créer benn laboratoire boo xamante ni la ñu liggéey danañu ànd ak ay spécialistes yu leen ci mën a accompagner ba nga xamante ni daañu fexe ba gën a performer li nga xamante ni mooy création yooyu nga xamante ni def nañ ko mu nekkoon nag organisation bu am solo ndax liñ ci wundoon mooy fexe ba euh, renforcer seen créativité mais wane it ni euh, toll nañu foo xamante ni dañu war a indi euh, lu jëm ci wàllu innovation gën ko saxal ci xadratu xadrat diine yi loolu nag mu nekkoon benn innovation boo xamante ni bu yees la pour la première fois d'ailleurs ci lu jëm ci wàllu événement religieux wala ci cadre euh, euh, tariqa ak cadre diine d'islam fii ci Sénégal euh, jongante bu mel noonu am am am am ci tabaarakallahu nu sant ñi ci ànd àndaloon ñëpp nag tabaarakallahu ba nu génne lool it amoon na yeneen programmation yoo xamante ni Seydou Zawiya Tijaniya defoon na ko lu ci mel ni forum bi nga xamante ni organisé na ko ci leçon et lumière de Njarnde mu nekkoon benn xalaat boo xamante ni danu jàpp ni dafa dañu soxla woon fésal suñu maam Cheikh Al Hadji Malick radiallahu anhu mu liggéey ca Njarnde nga xamante ni tëju na fa lu xaw yegg juróom-ñaari at yoo xamante ni fu ne la nit daan jóge ñëw di ko fa fekk ci sàkku xam-xam ak sàkku ku la jaarale yoon ci sa wàllu tarbiya waaye it mu defoon ko bërëb boo xamante ni liggéey na fa ci wàllu suuf ci mbay lu am solo nu jàppoon ni jaadu na nu leeral tuuti la mu def foofa nga xamante ni mën naa wax ni fa la tënke stratégie bi mu ndar keppe Sénégal ci former ay mag yoo xamante ni ay clone lañu moom laa wax ci moom ndax ñu mel ni moom la fa former jàngal leen euh, orienté leen ba nu demee ba mu noppi ci ñoom mu bàyyi leen ñu dellu ca gox ya nga xamante ne fa la ñu jóge woon nu tànn ñenn ci ay mag yoo xamante ni waxtaane nañu seeni jaar-jaar woo seeni njaboot ñu ñëw fekk li nga xamante ni moom la ñu doon euh, la la mag ña def fësal ko ci wàllu bind ak ci wàllu liggéey wala waaye nit ñi gën leen a xam maanaam ndaw ñi xam référence yi ñu am ñan lañu ba mën a euh, tibb ci ñoom loo xamante ni dana leen dimbali ñu tabax àdduna ju dul màbb nu jóge ci lool it organiser benn exposition ci jaar-jaaru Cheikh El Hadj mu nekkoon aussi exposition bu am solo euh, tabaarakallaahu nu liggéey ci ànd ci ak ay boroom xam-xam waaye ànd ci it euh, musée de civilisations bi nekk Dakar euh, tabaarakallaahu ñu ubbi ko ci ñetti fan ah nit ñi ñëw xeeñcu jaar-jaaru Cheikh Al Hadj ak njabootam ak muqaddam yi nga xamante ni ñoom la forme waaye xeeñtu seeni jeexital euh, tabaarakallaahu loole it ñu toftal ci beneen exposition boo xamante ni ci wàllu créativité la jëm moo di ànd ak liggéey ak soxna soo xamante ni dafa doon def wàllu calligraphie waaye mu dippe ko ci thème bi nga xamante ni moom la mag ñi joxe mu di yonent bi sallallahu alayhi wa mu def ci ci wàllu calligraphie lu am solo mu di soxna mu tàmbedu loolu bokkoon na ci activité yi nga xamante ni euh, yëkkati woon nañu ko waaye it lépp lu jëm ci wàllu communication bi moo xam dafa jëm ci wàllu accréditation yi tabaarakallaahu euh, ñu accrédité lu ëpp 700 800 journalistes euh, ci gàmmu gi dalal leen toppatoo leen euh, tabaarakallaahu waaye orienté leen aussi ci seen ligne éditoriale ba fexe ba message yi kilifa yi bëggoon xalifa bi bëgg ko ñu jàllale ko nu fexe ba message yooyu jàll bokk na ci spectacle son et lumière bi nga xamante nit def nañu ko euh, ak façon ba ñu ko defee tabaarakallaahu mu feeñal lennet ci li am ci daara Cheikh Al Hadj ci wàllu njàngum Alqur'an waaye it delluwaat ca thème bi nga xamante ni mooy thème bi ñu jàppoon ci fësal li mag ñi def. Euh, ci mag ñaandoon ak Cheikh Al Hadj Malick ci wàllu njarde euh, ñu def ci liggéey bu am solo seq ko ak suñu bokki euh, soraano yi ci kilifteefu El Badara Sarr mi nga xamante ni moom la ñu Jean Pierre Lers boole loon tabaarakallahu ci at yu mujj yi bi yàlla dogalee la mu dogal ci moom yal yàlla dolli ko leer moom Badara mu ànd ci ak waa soraano yi tabaarakallahu ñëw. ànd ci liggéey ak nun euh, boobaak léegi daa iman gàmm gu nekk rek nu ñëw taxaw ànd kook ñoom Cheikh Tidiane Mbaye ak euh, waykat yi ak xale yi nga xamante ni ñi ngi ci wàllu way ak jàngum alquran loolu it nekk benn ci activité yi nga xamante ni defoon nañu ko jëmale ko ci gàmm gi euh, bokk na ci ci li nga xamante ni bokkoon na ci programme Cellule Zawiya Tijaniya fexe ba fésal ay support yoo xamante ni supportu njàngale la ak fésal njàngu mag ñi moo xam ci wàllu internet bi la site internet yu bees ak ay plateforme yoo xam ne ay plateforme dédiée la waaye it ay édition yoo xamante ni def nañ ko ci wàllu fésal jaar jaaru Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu bokk na ci catalogue bi nga xamante ni tabaarakallaahu euh, génne woon nañu ko mu di document boo xamante ni bu am solo la jàpp naa ni képp kuy taalibe tiijan war nga fexe ba catalogue bi nga am ko euh, mu doon ay euh, document yu raar yoo xamante ni pour la première fois sax nit ñi di ko gis ci histoire u Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu ak njabootam waaye mag ñu tedd ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon mu di document de 160 pages boo xamante ni Sylvie Zawiya Tijania moo ko édité ci gàmmu gi ngir rek bëgg nit ñi surtout génération yu mujj yi moomale seen bopp li nga xamante ni mooy jikko yi nga xamante ni moom la Cheikh El Hadj si Sy ràngoo woon euh, tibbee ko ci Euh, njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk na liggéey boo xamante ni dana am solo loolu nit ñi wut ko ku ne am ko ci sa biir kër ndax dana tax seeni njaboot xam ni euh, fi mag ñi jaaroon dana saxal ci ñoom ñu xam seen euh, histoire ba xam it seen jaar-jaar xam it valeur yi nga xamante ni moom lañu ñu incarné woon ñuy ñaan ku nekk ku ko soxla it daa ko mën a fekk ci plateforme cellule Zawiya Tijaniya yi euh, macha allah ñu li ñaan nit ñi wut ko te lañu koy wecc koy lu yomb la euh, mu ngi ci site sesat euh, point com www point sesat point com lu ngeen ci soxla ci information mën ngeen ko commander en ligne it ñu mën leen ko livrer tabarakallahu loolu yi dafay doon ndimbal boo xamante ni dana jàppale cellule bi ci ay mission ndax mission yi mu ràngoo dafa xaw a diis te lu mel nii rek moo ñu mën a permettre ah nu mën a jël en charge li nga xamante ni mooy liggéey bi nga xamante ni war nañ ko doxal ci wàllu communication doxal ko ci wàllu xadra bi ci wàllu culture ak valorisation patrimoine bi kon nag nu ngi ñaan bokki taalibe yi nu fexe ba wut ko taalibe bu nekk war nga koo am ci sa biir kër tabaarakallaahu mu nekk seen livre de chevet ngeen xam mag ñi fi ñu jaar tabaarakallaahu nu ngi yéegali ci programme yi nga xamante nit euh, cellule bi liggéey na ci mu jëm ci wàllu euh, innovation yi nga xamante ni indi na ko ci wàllu cérémonie officielle bi euh, ku ne gis na ko euh, nañu ko fexe ba mu gën a taaru euh, ak innovation yiñ ci indi ci wàllu accueil baak ci wàllu mise en place yi tabarakallahu loolu yëpp di doon amélioration boo xamante ni bu continue la boo xamante ni cellule bi daf koy indi ci ay mission am ànd ko ak koskaas bi nga xamante ni mooy maître d'œuvre gàmmu gi euh, tabarakallahu ah mu nekk ay innovation yu am solo yoo xamante ni euh, cellule bi liggéey na ci ah nu di ci jaaf jëfal nag bokki cellule bi yëpp tabarakallahu nekk ay jàmbaar jàmbaar yoo xamante ni euh, seen yéene yéene bu kawe la ci seen xadra maam ba tax na bu jotee ñoom ñëpp nu ñëw taxaw taxaw boo xamante ni taxaw bu am solo la euh, ngir rek bëgg sagu xadra bi bëgg sagu diine jeeg tariqa bi euh, tabaarakallah ñu jaajëfal leen euh, di jaajëfal ñii ñi ñu ci àndal ñëpp ba ca secrétaire exécutif bi Seydi As Ñang ak ña mu àndal ñoom babakat drame ñoom Diakoula Cissé ñoom Bachir ak ñoom Seydi Ali Guèye ak ñoom Saïdou Nourook ñoom euh, euh, euh, professeur Mbaye tabarakallah yore comité scientifique bi macha allah nga xam ni liggéey yi ñu def yëpp ànd ko ak ñoom Bakary Samb ñoom professeur Mamaram Seck Jamil Ñaan macha allah professeur Abdou ñoom ñëpp wax dëgg yàlla doon ay jàmbaar euh, ci biir cellule bi euh, ñu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci taxawaay yi waaye nag ñu beral nag cant euh, suñuy jarbaat tabaarakallah di Abdoul Aziz Lo ak rakkam Bachir Lo di doomu soxna Mam Fama si di sët ci Serigne Abdoul Aziz Al Amin tabaarakallah doon ay jàmbaar ñoom yi ñu fi gis ci wàllu seen scénographie bi ñu def euh, ci cérémonie officielle bi euh, tabaarakallaahu bi gàmmu gi dëgmalee la ñu ñëw seet si ma ni ma nijaay kat nun kat euh, yaay soxna maam faama def ni ñu nangeen dem nekk ci seen weti ndijaay yi ngeen jàppale leen ca lañuy def tabaarakallaahu nu ñëw ànd ak nun ndax loola ci seen activité yi ñuy def la bokk ñu am ci xalaat nag ñëw waxtaan ceeg man bi ñu ci waxtaaneek man man leen dangeen di bàyyi ma dem waxtaan ceeg koskaas waxtaan ceeg Serigne Moustapha bu ñu ci d'accordee nu ànd yeggale ko ci xalifa bi tabaarakallahu bu ko validé rek ñu def ko ndax noonu ñu daan gisee nit ñi di buuxante euh, di ko defee ci euh, euh, kaw pëjam bi nekkoon na loo xamante ni dafa xawoon a problématique ci wàllu sécurité dafa problématique ci wàllu euh, euh, protocole waaye gis nañu ren ni bi ñu ko euh, nañu ko defee réglé na problématique yooyu ñu daan am ndax kenn gisu fa buuxante ku ñëw xam nga fa nga war a dem toog nga dem toog fa tabarakallah yooyu yëpp di ay amélioration yoo xamante ni ñu am solo la tabarakallah nu boole leen ñaanal ñoo ak bokki cellule zawiya tijaniya fàttewu ñu jig nga xamante ni ay jàmbaar lañu ñu ngi ci suuf waaye équipe yi nga xamante ni ñu ngi ci wàllu nettoyage wàllu accueil wàllu ñoom sii di sàll euh, di commission sociale liggéey yi nga xamante ni def nañ ko tabaarakallaahu mu nekk liggéey yu yoo xamante ni fesul ndax ci euh, back office bi la nekk waaye nekk liggéey yu am solo ndax ñoo doon dalal journaliste yi di leen orienté tabaarakallaahu loolu nekk liggéey bu xaw a xaw a diis tuuti waaye macha allah ci seen dogu ak seen njàmbarte fexe nañu ba loolu yëpp daal di yemb euh, tabaarakallaahu gàmmur ji jaar fa mu daan jaar ba gën sax rafet laa wax euh, tabaarakallaahu ñu jaajëfal leen ñaanal leen ñaanal leen yàlla euh, yiw fi wàcc si fii ci Tiwaawan yàlla bu leen ci kenn ëppale macha allah liggéey yi rafet na loolu tabaarakallaahu ñu di leen ci jaajëfal bu baax a baax waaye it di dellu si di sant ñoo xamante ni mënuñu leen a bañ a sant ndax mission bi ñu seq ak bi ñu bi ñu dëgmal ci gàmmu gi yàlla ak seen jàppale moo nu permettre ñu mën ko mottali nu di ca tudd ñenn euh, tabaarakallaahu di ca tudd ministre Sidiki Kaba tabaarakallaahu di sunu wëllëre doon suñu wóllëre wayjur doon suñu wóllëre xadra bi di doom ci xadra bi tabaarakallaahu nga xamante ni wóllëreem ak sëriñ Mansour si borom daare ji kenn nattablewu ko macha allah te ma ngi koy sàmmoonte ba léegi wóllëreem ak sëriñ Abdul Aziz Al Amin it kenn nattablewu ko ndax daf ma wax ni ma gannaaw ba ñu dëkkee bokkandoo dëkk fële ca carrière nga xamante ni jumaa ja fa tabax ba ñu koy ubbi mu ne ma ci wetam laa ne ba nu ubbi ko tabaraka mu nekkoon suma wayjur macha allah bu gàmmu jotee rek du xaar sax nu woo ko moo nuy wool boppam macha allah la mu ci bëgg wundu ci jàppale mu indi ko ñu santi le ministre Aliou Sow mi nga xamante ni mooy ministre la culture et du patrimoine moom it tabarakallahu lañ ko soxla woon yépp ci wàllu Sorano wàllu musée des civilisations ca wàllu euh, euh, euh, son et lumière lépp joxe na instruction ya ca war loolu doyu ko tabarakallahu mu yabal fi délégation bu am solo ni leen dama bëgg ngeen dem teewal ma ci spectacle son et lumière bi nga xamante ni moom la cellule Zawiya Tijaniya di organiser ci cadre gàmmu gi ñu sant ko jaajëfal ko ci taxawaay yi ak yéene bi yàlla dafa dogal mu tukki loolu tax teewul waaye yebal na njaboot gi mu am yépp ñu santit suñu mbokk bopp suma patron laa koy woowe sama grand patron mu di xaaj Demba Diop si di meeru Tiwaawan ah Demba lu mu yëg ni cellule Zawiya yaa ngi ci tabaarakallaahu mu ñëw taxaw ci suñu wet taxaw ci taxaw bu am solo ña mu am ci njaboot dana leen xirtal ci ñu ñëw taxawunu bëri na lu diis diis diis yu amoon ci gàmmu gi gannaaw taxawaayam ak yéeneem bu rafet lañu ci amee ay solution ndax li nga xamante ni def nañ ko ci wàllu accueil euh, presse mu di agora la presse bi nga xamante ni yëkkati woon nañu ko euh, moo nu boole ak jarbaatam Kader Diawara macha allahu kadeer nu di ko sant bu baax ci taxaw bi nga xamante ni taxawu nañu ko mu yor benn imprimerie bu ñu wax kàddu euh, esa euh, waaye di liggéey ci wàllu événementiel la ñu soxla woon ci impression lépp moo ko def tabaarakallaahu ba ci catalogue bii ñu leen doon wax moo ko imprimé euh, tabaarakallaahu la ñu soxla woon ci ay visuel yépp it moo ko indi defar ko ci délai yu gàtt na wax dëgg yàlla ndax biñ koy sollicité booba gàmmu gi xaw na dem ba xaw a ndar waaye mu moomale ko boppam euh, taxawuñu ci na ci na mu waree tabarakallahu defe ko générosité ak yéene bu mat sëkk tabarakallah di ko ñaanal entreprise am kaddu yàlla nañu ko dégg fu nekk ci àdduna macha allah yàlla na yàlla defal mbiram ci barke yonte bi sallallahu alayhi wa moom ak euh, ndigaayam ju tedd jooju mu di xaj Jóob Jóob si waaye yamul foofu moom Diop boole ñoog doomam soxna euh, Urey Urey Diop yore moom it société bu tudd Innov SA lépp lu ñu waroon a def ci wàllu affichage euh, euh, ci ay affiche def ko ci ay ak i écran ay écran e yoo xamante ni fu nekk ci Tivaouane lañ ko def di ci jàllale ay message di ci jàllale ay affiche ci wàllu gàmmu gi tabaarakallah loolu yëpp euh, def nañu presque lu xaw yegg soixante quinze euh, euh, affiche yoo xamante ni dañ ko tasaare ci Sénégal yenn yi ca Dakar yenn yi ca Thiès yenn ca Tiwaawan macha allah mu jël résome bi mu yor yëpp mettre ko ci disposition wu cellule Zawiya Tijaniya moom it ñu di ko ñaanal ak société boobu di Innov SA yàlla defal ko tawfiq ubbil ko bunti wërsëg ak euh, euh, réussit yal na ko yàlla def ñu santit sunu bokk Mouhamadul Amin Camara mi nga xamante ni moo yore al amin transit nekkit doomu xadara bi tabarakallahu taxawanuñu taxawu nañu na mu ñu war a taxawoo macha allah na mu ko daan defee daa iman yebal na fiit ay bokkam yoo xamante ni la ñu soxla woon ci ay boisson lépp moo nu ko indil mu di euh, sunu mbokk euh, euh, zu Zuhair tabarakallah indi fi lu dul lu dul jeex ci boisson kiñ nu sant ko moom it di sant euh, suñu baay Abdul Aziz Ngom macha allah suñu wéy jur moom it tabarakallahu lam nu war a taxawee ci gàmmu gi bu jotee du xaar sax nu wax ko ko macha allah ca ay yëreeg mbubb yam nu indi la ca teranga yam ñuy jox ak ca alal jëmuy indeeg macha allah yàlla na ko yàlla dëgëral te sàmm ko yàlla barkeel li muy liggéey tabaarakallaahu nu santit El Hadji Demba Ka bu EDK moom it taxawu nañu nam ñu war a taxawoo sant Momad Ba bu Aprosi sant soxna bu Doucouré macha allah sant Amadou Bokoum directeur généralu musée des civilisations santit sunu wólëre may sa mayekoor Diouf tabaarakallaahu yónnee na fi nag wu rëy tabarakallahu santit Mansour Ngom di rakk ci Abdoul Aziz Ngom moom it lu ne indi na ko fi ci ay boisson waaye sant sunu doom Sira Ndong di sama euh, doomu wëllëre Abdoul Aziz Ndong di turandoo suma wéyjur Abdoul Aziz Al Amin tabarakallah nekk xale bu ñu soppal boppam lu ñu nekk rek mu nekk ci ak ñun tabaarakallahu yal na ko yàlla dëgëral moom it te sàmm ko moo mbokkam ma Moustapha Diop macha allah nekk ay ndaw waaye nekk ndaw ñu yëngu te yéene ci seen yëngu euh, euh, xadara bi tabaarakallah lu ne nañ ko fi ci jën ak ganaar ak lu nekk euh, nag ak lépp macha allah yal yàlla saxal teranga ci ñoom waaye ñu sant suñu sponsor yi nga xamante ni ay entreprise la yoo xamante ni ànd na ñoom ñoom liggéey ñu ki mel ni orangement ni Sonatel ci suñu gox euh, la haute autorité du wax nga xamante ni Haj Racine Ba moo ko jiite di suñu frère di suñu partenaire Racine partenaire u cellule Zawiya Tijaniya la ah di ànd ak ñun ci liggéey yu bëree bëree bëri macha allah ñëw na fi ci boori gàmmu gi la mu waroon a def tabaarakallaahu Euh, ci ànd koog nun def na ko macha allah yal na ko yàlla dëgëral waaye santit fondation du port autonome de Dakar ak ñi nga xamante ni mooy seen président di Mountaga si ñu ngi koy sant instruction ya mu joxoon fondation bi jaarale ko ci euh, loxo euh, soxna Juma Tirera mu ànd koog ñoom soxna Fatimata Sidibé ak soxna Awa Siis ñëw nañu taxaw ci suñu wet indi lu nekk indi ay kit alimentaire 1500 kit alimentaire ànd ko Seydou Zawiya Tijaniyya ñu distribuer ko ci ci euh, Tiwaawan distribuer ko ci journalistes yi tabaarakallaahu yal na yàlla dëgëral leen yàlla euh, dëgëral fondation bi li mu yéene ci port autonome de Dakar yàlla defal ko tawfiq ba mu mottali mébétu président de la président de la république euh, ci port bi ci pooru futur beeg ya ca aju yëpp macha allah yal ko yàlla defal ñu santit cheikh baaxum bu seenam esa tabaarakallaahu moom it euh, taxawu nañu ci akaton bi la ca war def na ko ca macha allah. ñëw bokk ak ñun bés yi ñëwal fi boppam dem ci xalifa bi waaye ñëwit euh, fii ci ñu doon defee akaton bi bokk ko akatonier yi encouragé leen tabaarakallaahu ah, taxaw it def ay engagement yoo xamante ni yoo am solo la yoo xamante ni bëgg na ko ànd ak Seydou Zawiya Tijaniya ñu sant ko ñaanal ko moom it yàlla yàlla dëgëral ko yàlla yokk euh, terangaam yokk suturaam yokk sutura seenam esa yal na ko yàlla def euh, nu santit Sonatel Orange moom it lu ne def na ko groupe Sonatel laay wax de manière générale Orange Money Sonatel ci sunu gox ak euh, Orange ci boppam ci li nu taxaw ci wàllu connectivité eh, ci wàllu eh, internet tabarakallahu la leen ca waroon yëpp def nañ ko waaye ñu santit suñu mbokk alxasan wadd moom ak eh, magam Ousmane Wadd macha allah bu owa trans li ñu soxla woon ci ay bus tabarakallahu indi na ko teg ko ci sunu loxo moo xam ci transportu journaliste yi la moo xam ci transportu hackathoniens euh, euh, euh, yi la macha allah yal na ko yàlla dëgëral yal na yàlla dëgëral leen dëgëral seen entreprise yàlla may leen fa nu yóbbu ko fu weesu njort ak yéenewu seen wéyjur Hassan Wade Ousmane Wade mi nga xamante ne mooy seen wéyjur yal na yàlla dolli ko leer ah tabarakallah nekk suñuy wëllëre nekk suñuy xarit macha allah fu ñu leen soxlaa rek bu ñu leen woowee ñu ñëw wuyu waaye ñu santit Euh, soxna Nafisatu Diouf tabaarakallaahu euh, bu euh, TDS SA moom it la ko waroon ci nun def na ko macha allah jël canal 99 jox ko Zawiya TV bi nga xamante ni mooy chaîne u cellule Zawiya Tijaniya danaa ci dellu si ndax tabaarakallaahu war nañu bokk na ci innovation yi nga xamante ni indi nañ ko ci gàmmu gi tabaarakallaahu nu mu ànd ceeg nun indi fi lu dul jeex ci ay euh, euh, euh, décodeur macha allah ànd ak seen techniciens yi ñëw nekk ak nun diiru gàmmu gi yëpp macha allah yal na yàlla dëgëral ko yàlla saxal ko ci béréb ba mu nekk te yokk ay garaadam ak maqaamaatam yàlla mission bi nga xamante ni dénk nañ ko ko yal na yàlla teg ci loxoom ba mu yeggale ko fi mu ko war a yeggale di sant Senre moom it suñu partenaire traditionnel la macha allah muy sénégalaise de réassurance suñu bokk euh, suñu frère euh, Papis Ndiaye nekk suñu interface ak directeur général ba tabarakallahu bu jotee la ko war mu def ko macha allah ànd ko ak euh, Cellou Zawiya Tijaniya waaye ñu santit suñu wëllëre mu di Kale Gueye bu Lidor SA Lidor Lidor di société buy liggéey ci wàllu fabrication matelas euh, ren amuñu benn problème mu matelas tabaarakallaahu ngir yàlla ak taxawaayam ak yéeneem bu rafet macha allah li mu fi sotti ci matelas ëpp na ñetti téeméer euh, loolu ngir yàlla ak xam mission bi ni mu diisee ci nun mu daal di mobiliser loolu ci ay matelas teg ko ci sunu loxo tabaarakallaahu ah di ànd kook nun macha allahu ca teel nag tel ko indi macha allahu assuré transport bi yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla def leader doon leader yàlla na leader doon leader ci ay concurrent macha allah yàlla na ko yàlla def ci secteur bi nga xamante ni moom lay yëngu nu ngi koy sant di ko euh, gërëm bu baax ci taxawaayam ci sunu wet euh, tabarakallahu waaye it ñu sant télévision yi ñoom ñëpp nag wax dëgg yàlla euh, dooree ko ca suñu télévision bopp yi euh, Malikia yi di télévision suñu bokk sunu frère alxaaji Maxtaar Njaay euh, tabarakallahu al amin macha allah la ko waroon ci bis bi def na la ca war yëpp macha allahu ci taxaw ci suñu wet accompagner communication bi accompagner euh, cellule Zawiya Tijaniya ci liggéey bi nga xamante ni waroon na ko def ci wàllu communication bi ñu di ko jaajëfal bu baax di jaajëfal it euh, binoo moom frère am euh, Mame Omar Ndiaye di sunu doomu bajjan macha allah bu asfiya i moom it taxawaay yam war a taxawee taxawee na ko macha allah ba liggéeyu communication bi yegg fa mu war a yegg communication bi la ci xalifa bi soxla woon xadara bi soxla ko macha allahu taxaw na ci moom ak euh, maxtaar defee ko nañu ko bëggee ñu di leen ñaanal yàlla dëgëral seen ay euh, outils euh, tabaraka la wax naa ni kër gi juróom fukki chaîne de télévision sax doyul waroon nañu sax mën a am ay chaine thématique tabarakallahu pour wane rek ni compétition amul ci complémentarité rek moo fi am macha allah tabarakallah complémentarité rek moo am ndax li fi ne ci lu ñu war a fésal ci valorisation patrimoine bi lu ñu ci tànk la fa des moo ëpp fukki junni yoon kon nag nun euh, ñëpp rek nanu ànd ku ne ca la nga jàpp nga jàpp ca te liggéey te xam ni la nga ca jàpp bul ko xeeb macha allah am na solo euh, loolu ñu leen ci Eh, jaajëfal bu baax tabarakallahu ah di jaajëfalit chaîne traditionnelle yi raw eh, commencé ko ca RTS di ndeyu chaîne yi ndax ba benn chaîne amul moo fi nekkoon eh, tabarakallah ànd ko nun di ko liggéey ci anam ba mu gën a rafetee directeur général Racine Talla bi mu demee ba gàmmu gi des fukki fan woo na ma ci boppam macha allah ni ma jox naa instruction équipe yi ni leen la ñu war a taxawee nañ ko taxawee euh, te tabaarakallah àndul nañu ñun ci suñu nekk ci suñu wet ànd ak ñun ci communication bi lu ñu leen wax rek ñu def ko. yal yàlla dëgëral RTS yàlla yokk ko mission yi ñu am ak euh, projet yi ñu am yàlla mottali leen ko mu doon ndamu Sénégal di ndamu communication euh, publique ci Sénégal tabaarakallahu waaye ñu santit Euh, TFM sant 2STV sant euh, ITV sant euh, Seneweb sant Walfadjri macha allah sant Sen TV sant 7TV tabarakallahu télévision yëpp macha allah ñëw nañu ànd ak nun defee gàmmu gi ci anam ba mu gën a baaxe ba mu gën a rafete Euh, tabaarakala lii amoon solo ñu focaliser wu ci euh, fexe ba message yu xalifa bi ak ay njabootam jàll ci anam ba mu gën a rafete euh, nu di leen ñaanal ñoom it yàlla dëgëral seen ay outils yàlla bu ñu faqastalu benn yoon yàlla yàlla def ko waaye chaîne YouTube yeeg Sodi Prom ak ay ay ajdaad ak tabaarakallaahu ñoom it seen taxawaay ñoom ñëpp rafet na wax dëgg yàlla yaa ñu di ñaan yàlla def leen ñu doon ay télévision yu mag macha allah euh, ba dugg ci bouquet yeeg yëpp yàlla na ko yàlla def tabaarakallaahu nu ngi sant ñëpp daal waaw ba soleil moom it def nañu ay numéro yu spéciaux euh, numéro spécial euh, ci wàllu gàmmu gi APS aussi waaw suñu mbokk euh, euh, Thierno Ahmadou si nekk membre ci cellule Zawiya Tijaniya macha allah waaye loolu doy ko tabaarakallah bi gàmmoo gi dëgmale rek moom ci boppam moo déplacé wu ñëw ñëw fekk siñu ñu taxawal fi ay équipe am boole leen ak euh, équipe bu Zawiya bi nu ànd def liggéey bu am solo macha allah yàlla dëgëral ko tabaarakallahu sant ñëpp. ku nu fàtte rek nga xam ni waaw presse écrite bi ñoom ñëpp tamit macha allah def nañu li ñu waroon a def ba ci observateur ak euh, euh, direct ak euh, quotidien ak walf ak tabarakallah ñoom ñëpp source ak macha allah ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñëw nañu taxaw tabarakallahu te ànd koog dogoog Euh, euh, euh, engagement ak ak ak ak ak dépassement ndax xam nañu ni ci daara lañ ñëw te daara daara du mate macha allah waaye ñëw nañu def liggéey ba ñu waroon def ngir yàlla xam ni mission bi ñoom ñoo ma ko bokk. waaw ëppalewuñ leen ci benn yoon ñu di leen ñaanal yàlla dëgëral leen yàlla dëgëral journaliste yi fi ñëw yëpp macha allah ànd ak nun ci liggéey bi yàlla dëgëral leen yàlla sàmm leen te yokk seeni maqaamaat ca organes yi nga xamante ni. ca la ñu nekk di liggéey euh, sant euh, cellule féminine Zawiya Tijaniya ànd koog euh, commission sociale pôle yi digital ak production ñoom Aline Gueye macha allah seen liggéey ak seen taxawaay nekk lu professionnel lu am solo tabarakallahu pôle presse Seydou Nour ñoom ñëpp nag ñu nekk ci supervision wu Haï Diakoula ñu di ko ndokkeel moom it ca gan gi mu am ndax yàlla dafa dogal bi nu dëgmalee gàmmu gi ndeysaan yàlla may ko euh, euh, nenne macha allah mu tuddee ko Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu tabarakallah di ko ñaanal yàlla barke turandoo bi wuyi si turandoom bi macha allah tabarakallahu ah di ko ca ndokkeel bu baax a baax ànd kook bokki zawiya bi yëpp euh, taxawaayam ci suñu wet nekk taxawaay bu rafet macha allah mu ànd koog ñoom Abdoul Aziz Loog ñoom Seydou ñoom Alioune Guèye ak Bachir eh, waaye an suñu suñu Amazon soxna Ndeye Astou Sy tabarakallahu moom it taxawaayam ci suñu wet ak Serigne Cheikh nag ndax nun mooy suñu eh, capitaine <laughs> Serigne Cheikh mooy suñu capitaine tabarakallahu taxaw nañu nañu war a taxawee macha allah ci biir zawiya bi eh, macha allah yal na yàlla dëgëral leen soxna Safiya tabarakallahu ah, moo nu yoral waañ wi moom moom moom mention spéciale lañ koy defal soxna Safi tabarakallahu ah taxaw nañu na mu war a taxawee nag macha allahu ak liggéey bu bëri bi nu am dañu ñëw mun waa yéen waa cellule da ngeen may fonto da ngeen di bàyyi ba mu des ñaari fan ngeen wax ma programme boo xamante ni téeméeri nit la concerné tabarakallah waaye du tere bu jotee rek mu taxawee na mu war a def ànd kook nag soxna maam faama mi nga xamante ni mooy ndeyu ndeyu waañ wi nan macha allah tabaarakallaahu lépp nu taxawee ko dara tardewul ah ñaata ngeen soxla ñaata fii ne macha allah loolu rek lañ dëkkee ak nun nan yal na yàlla dëgëral leen te sàmm leen mission bi nga xamante ni seen wéyjur ah, sëriñ Abdul Aziz Al Amin moo ko tegoon ci seen loxo ni leen wéttali leen seen yaay soxna Aida Kane ci liggéey bi nga xamante ni moom lay def ci eh, xadra bi bu jotatee ngeen taxaw lu ëpp fanweeri at yi ñu di ko def macha allahu bu jotee rek nu bàyyi seen kër tëj seen kër ñëw toog bu gàmmu desee ñaar fukki fan lañuy ñuy tëj seen kër ñëw toog moo soxna mul xay rek soxna dabaak tabaarakallahu ñoom ñëpp macha allahu waaye eh, ñëw taxawee li nga xamante ni mission xadara bi la moo di jox nit ñi lu ñu jëfandikoo waaw di ko defee nag euh, générosité euh, yéene bu rafet macha allah yal na la dëgëral leen yàlla sàmm leen te sàmm seeni njaboot yàlla bu leen kenn ëppale ci barke bi tabarakallah soxna kalamba it soxna daba macha allah nekk ca waañ wa ñoom it ànd ak nun ci euh, beral gan yi bernde macha allah defe koog yéene bu rafet tabarakallahu Euh, na ko soxna umul xayri daan defee noonu lañ ko àndee di ko di ko defee tabarakallahu yàlla sàmm leen te dëgëral leen mission bi nga xamante ni mooy di seen mission maam ya euh, dale ko ca euh, suñu maam asukan ba léegi ñu di ko doxal yàlla na yàlla dolli leen kattan ak sago bu ñu ko mottalee tabarakallahu moom daal macha allah ñëpp taxawee nañu nañu daan taxawee di sant délégation étrangère yi jugee bitim réew macha allah ñëw waa zawiya euh, euh, zawiya ba ca Paris ñëw nañu ci man macha allah ànd ak am liggéey bu solo nag bu am solo bu ñuy def ñoom it euh, ca ca Paris nu di leen sant wax dëgg yàlla ca taxawaay yi waa Italie waa Suède waa Espagne waa États-Unis tabaarakallaa délégation yëpp na taxaw macha allah ñoom it ànd ci gàmmu gi euh, loolu yëpp ñu synchroniser ko ñañ mënula ñëw euh, tabaarakallaa fexe nañu ba dundal xadra bi dundal bis bi ca euh, bërëb ya ñu nekk ak réew ya ñu nekk tabaarakallaa yal na yàlla dëgëral leen macha allah taxawaay yëpp rafet na xalifa baa ngi nuyu di ziyaara di leen ndokkeel ñoom ñëpp waaye di ndokkeel it ñi nga xamante ni ñooy ay ñi mu bokkal diine ji mu di xalif généraux yi tabaarakallaahu euh, daa dale ko ca euh, suñu wéyjur wu tedd wa euh, suñu maam maam Bachir Tall tabaarakallaahu moom it macha allah mu ngi koy ziar bu baax di ziar Serigne Mountakha Mbacké di ziar sunu njabootu suñu maam Bu fii ci Ndiassane di suñu ay dëkkandoo euh, di ziar ahlu Cheikh Ibrahim Cheikh euh, Abdoulaye Niass njabootu Cheikh Abdoulaye Niass mu ngi leen di ndokkeel di leen ziare ci bis bi waaye di ndokkeel it euh, Serigne Mahi Niass tabaarakallahu di ndokkeel ahlu Laayeen nga xamante ni Haj Maxtaar Laay moo nekk ca bopp ba di ndokkeel it mu niiru Njëgën fii ci Thiès tabaarakallahu di ko jaale euh, euh, jigéenam boobu di soxna Xadi Njëgën euh, bi noppalu ci bisu gàmmu gi tabaarakallahu di ñaan yàlla yeesal yërmande ci moom demoon nañ fa ànd ak Serigne Babacar si Abdoul Aziz mi nga xamante ni wóllëre suñu mag abdu Fall mi nga xamante ni mooy taawu soxna si macha allah nu daje fa dem ca xalifa ba yóbbaale euh, njaalu xadra maliki yëpp nag xam ni lu dal foofa rek yegg si fii ci Tiwaawan macha allah euh, sëriñ Muniru ñu di ko ndokkeel it ci tuuru xalifa bi ci bés boobu waaye di ndokkeel it di jaal suñu wéyjur alxaaji Mansour Cissé tabarakallahu yàlla na yàlla euh, yeesal yërmande ci moom Euh, yàlla yërëm ko te xare ko aljanna macha allahu yàlla dogalit mu nelaw ci euh, euh, bi ñu toxtalee gàmm bi tabarakallahu di ñaan yàlla yokk ko leer fa mu tëdd macha allah di ko jaal suñu njabootu suñu maam Abdou Cissé yëpp tabarakallahu ñu leen koy jaal bu baax a baax a baax a baax ah di ndokkeel Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu Madina Gunaas Euh, tabaarakallahu yebal na fi délégation bu am solo mu ñëw bokk ak euh, euh, xalifa bi lii nga xamante ni ah ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu ñëw na bokk ak nun bis bi yebal fi délégation bu am solo tabaarakallahu nu ndokkeelaat jullit yëpp ba ci chrétiens yi sax xalifa bi mu ngi leen di ndokkeel macha allah di sant ñëpp waaye di sant ministre de l'intérieur tabaarakallaahu euh, di sant président de la république mi nga xamante ni moo joxe instruction yi nga xamante ni euh, jox ko gouvernement euh, jox ko premier ministre Amadou Ba ci taxawal li nga xamante ni mooy gàmmu gi la ca war gouvernement bi lépp mate na macha allahu tabarakallah ñu sant ko moom président de la république ñaanal ko yàlla macha allah ñëw bi mu ñëw fii ci Tiwaawan euh, lu fees xol yi la tabaarakallaahu wax dëgg yàlla ngir yàllaak ak euh, yéeneem ci euh, xadra Cheikh El Hadj Malick waaye yéeneem ci diine ji de manière li mu defal këru diine yi amul président bu ko mës a defal këru diine yi tabaarakallaahu yal na ko yàlla dëgëral yàlla gunge ko ci yoonam fu mu jublu rek yàlla na fa yiw yàlla jublu incha allah yal na ko yàlla defal moom ak euh, euh, son premier ministre waaye di jaajëfal nag euh, le ministre de l'intérieur macha allah di Antoine Félix Diome la ko waroon ci liggéeyu gàmmu gi def na ko na mu ware tabaarakallaahu ànd kook comité d'organisation bi mais ànd ko aussi ak euh, euh, gouverneur ak préfet ak conseil départemental ak maire yi Tivaouane macha allahu tabarakallahu ñu di leen jaajëfal ci euh, liggéey bu rafet boobu nga xamante ni def na ko man de yëguma couac bu am ci gàmmu gi bu insuffisance amee nag du ñàkk mu am ci parce que waaw li fi dajee yëpp ci ay doomu aadama ak li gàmmu gi wund yëpp du ñàkk mu am ay ay ay ay insuffisance yu ndaw waaye yu yu yu yu minime la la waroon yëpp tabaarakallaahu euh, euh, def nañu ko macha allah ngir rek dabu gàmm gu dal gàmm gu ànd ak yiw euh, tabaarakallah te loolu yàlla defal nañu ci sutura ci wàllu yoon wi bëriwul donte accident am na wante lépp tegu na ci yoon bi mu waroon a jaar macha allah kon nag nu yamale foofu kàddu gi di sant effectivement waa waa santé force de de sécurité et de défense yi tabaarakallah ñoom it seen taxawaay euh, rafet na loolu moom daal ku nekk la la ca waroon def nga ko def ko ci anam boo xamante ni anam bu rafet la macha allah euh, lépp nag doon sottiku doon yiw fii ci Tiwaawan yal na yàlla fay leen ñi ci yëngatu euh, ànd ci ak comité d'organisation bi ànd ci ak cellule zawiya tijaniya waaye dabu ci sagal alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour sagal njabootu Cheikh Alhaji malik si tabarakallah yal yàlla fay leen ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa ci barke guddi gi ci barke Cheikh Alhaji malik ak njabootam yu tedd yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh